def si revue de presse ndax tele bi de déedéet parce que amul jot bi mais dafay ñëw ndax cofeelam ci ñun dafay ñëw ndax ni ñu bokkee Serigne Touba léegi ñun ñoo la ko ñaan ci barke Serigne Touba dañu bëgg a woo Mbathio paas la ko a woo Mbathio paas la ko parce que parce que tey la anniversaire Mbathio en plus. waaw si tey la anniversaire tey la <laughs> Mm. Ah. Mm. waaw kay ñu woo ko ah. ah Mohamed da bëgg ñu woo ko ah. Badou Sarak la et Mohamed yow da baax. waaw jox ma jox ma bi nga yor rek. voilà ba pare yow yow Mohamed da ngaa baax Mohamed. wala ma woo. wallaay ma directement. xaaral maa ko ba téléphone ba pare Mouhamed yow dangaa ngaa baax. barke Serigne Touba yàlla baax na waaye Mouhamed Ndiaye dafa bëri. Mbathio est-ce que yeewu na sax. wooteel foofu ba woote fii. est que Mbathio yeewu na sax tey la anniversaire u de. ah. ah. occupé. appel occupé xam naa ñàkk ko woo da sama classe gi. Mbacso bu ko wuyu. keroog bi nga ñëwee ci télé bi daf laa wàññi. ki may woo du Mbacso. tey la anniversaire am en plus on est en train de la joindre euh, bëgg dañ ko jot léegi nii comme ça ñu passe ko Mamadou Mohamed Ndiaye. mais booy woote a woote. voilà elle a dix mille téléphone yàlla nañ ko jot yàlla nañ ko jot yàlla nañ ko jot xanaa ñu wedd rek yaa mbàcc yaa yaa mbàcc yaa mbàcc après léegi dañ lay bàyyi nga def revue de presse léegi jógee ci mbàccoo damaa bëggoon ñu woo kiwin bii